yàlla déglu nañ président li mu wax waaye ñoon pour ñun ay théâtre lay def daal ay diversion la parce que réew mi bu ñuy wax pays de droit lañ nekk su fekkente ni dafa am ay événement yu fi am dañoo war a dégager responsabilité ba pare ñu ne kii moo def lii kii moo def lii ba pare ñu soog a mën a def le pardon. amnistie bi gën a lu ma ndax li tax mooy amnistie balaa muy am dañuy mën a xam nit ñi ñu rey génne ay bal tiiri seen kaw ñan ñoo leen tiiri loolu moo jaadu. waaye rey nañ leen rek amnistie nañ leen loolu ci kaw lan loolu fu ñu ko teg. Macky Sall wax dëgg dëgg la parce que am na yoo xam moom fu ne dem ginnaaw ba fi loo xam ne yow ba léegi beneen buy ñëw après règlement de compte lay indi si réew loolu baaxul day tàllal réew Macky xam loolu lu ko jaral mu toog boobu léegi rek di nekk si programme bi pour beneen président bu ñëw moom fu mu commencé koo commencé foofu ndax dëkk bu jëm kanam. loi bi de bu ma sañoon assemblée ña fa nekk député yi. balaa ñuy voté tey euh, lii Macky Sall bëgg ñoom nañu xalaat waxu maa Abdou bi maa Abdou waxoon wax jooju nga xam ba ko maa ab Abdou waxee kenn xamul ñaata at la wax jooju tey la am njëriñ wax ju muy toog naan yéen ñi nekk député yi nekk assemblée lépp lu ñu leen indil muy loi ngeen war ko voté na ngeen ci xool seen digganteeg yàlla. bu fekkee ni ñoom dëkk bi askan bi lañ fa taxawal doomu aadama yi dund Sénégal nekk ay Sénégalais ñoom ñoo leen fa taxawal bu ci nit ñi àndul rek ñoom waruñu cee ànd bu fekkee nag seen intérêt personnel la ñuy xool loolu nag ñoom ñoom ak yàlla seen borom la waaw mais nag bu ma sañoon nag ñoom ñu xalaat xam ne nit ñi ñoo leen fa teg doomu. parce que ñi fàttali lii jël lépp suul ñaari xale yi dem yàlla xale na àjjana lii bañ amati senegal man daal loolaay ñaan. Hmm, musiba la yéen lii ndax bu ko defee kii toogaat boo léegee day day solu ñëwaat dossier bi ñu jaarale woon assemblée ñu àtte leen ñu loolu mooy yoon.